dolli yërmande parce que presse bi déjà ñi ci nekk sonn nañ bu ñu ci boolee nag aussi ku ku ku def loo xamante ne xëy na da ngaa jàpp ne kii daf laa joxul cër wala leneen nga sanctionné ko loolu aussi yombalul affaire yi. Mm-hmm. parfois réew mi comme ni ñu ko waxee léegi rek nañ muñ certes mais nañuy jàng aussi di jëllale di jéggale. waaw loolu aussi dafa am solo. Mhm. Euh, vidéo bi ñuy wax defe naa moo nekk. voilà vidéo bi moo nekk noonu. boobu mu nee may son su ko defee soo see mën a xool kàddu yi nga xamante ni Sidath yëkkati na ko ci video bi ndax war na mën a tax ñu loo ko këram am déet bu yembee réseau ñu dem vite fait. félicitations directeur El Hadj Assane Gueye naa tey vraiment wax sa xalaat ci journal bi nga xamante ni mu ngay présenté tout le temps sur la RFM la meilleure des fréquences. Assane ma jox cël en tant que directeur euh, de la RFM te comme wax sa xalaat moom am na ñuy dugg ci téléphone bi mais am na tamit ñu mën a def seen vidéo waxtaan mais man damay gis ni ngay argumenté bokkul ak comme ni nga doon argumenté ci jeune ci euh, jamonoy Macky Sall parce que je vois nii ni actuellement instant bi nga gën a am audace wax yenn dëgg yi. que gouvernement Macky mooy dëgg gën a waroon wax gouvernement Macky Sall waxuñu leen ko mais instant yi avec euh, ce nouveau régime bi nga xamante ni xew na euh, am na loo xamante ni am nga audace pour wax ko maintenant mais man je vois que loolu <laughs> départ gaynde arrivé muus la parce que gouvernement bu am deux mois demagul fenn. te lépp lu ñuy kaas ci biir Sénégal am na loo xamante ni que yéen xam na situation Sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy wàllu économie muy wàllu euh, infrastructure cest à euh, muy cest à Sénégal fépp ay métti te te loolu li ko waral du nouveau régime bi moo tax nu koy wax de non non dafa am lu tax ñu koy wax kon donc man je vu que man je vois que Assane Euh, am na loo xamante ni tam nu bàyyi ci xel régime bi soog a ñëw mënul xëy régler lépp da A à Z ndax li fi ne ak liñ fi bàyyi ak li nga xamante ni état bi liggéeyoon na ko avant ak li ci ay tooxi duuna am fi te waxuñu ko woon nu bàyyi ba di ko soog a wax attention <laughs> dañuy tëb rek pour forcer état bi pour nu xëy lijjanti loolu ni nga koy lijjanti sax ndax boo xoolee ci benn weer ak ci ñaari weer mi ngi def jaloore yu am solo na yoo xamante ne que kenn euh, mën nañu wax ne xam nga bu yàgg gars yi dañ naan def sax lu xëy population bi yëpp di ko wax mais gars yi liggéey en sourdine c'est-à-dire mooy dañuy xëy di jënt lu bëri ci réew mi loo xamante ne que sax xaluma kenn di ko waxtaanee fekk gars yi ñu koy faj kon man yaakaar naa ni yëpp balaa ñu koy wax ah il faut donner le temps à ce régime bi nga xamante ni que. am na régime bi fi jaaroon def fi douze ans te ñun ñaari weer nañ fi amagum kon Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko lu am solo mooy lépp lu ñuy wax lu ne natt leen ko ci état bi fi jóge ak ban instant la fi état bi nekk ak ñaata temps la def ak yan jaloore la def ak aussi yan jaloore la duggagul c'est très important parce que état bu defagul sax eh, ñetti weer wala ñeenti weer nu bëgg ko yan loo xamante ni mat na douze ans yaakaar naa loolu lu mu naan <laughs> euh, loolu moom euh, lu rëy lay mën a doon quoi loolu mënta ne donc euh, ce qui est important nu jox temps tuuti gars yi nu xool après qu'est-ce que ça mais en tout cas sama directeur maa ngi koy féliciter sama impression laa doon wax ci vidéo bi sànni ko parce que wax sa xalaat la ñun ñëpp ci réew mi ne nekk dañuy wax suma xalaat Diomaye mooy ko Sonko ak Diomaye voilà Socé kaddu kaddu sidaat yi mi ngi noonu euh, Assane Gueye xamal ne ko Euh, jamono ji daal taxawaay bi nga xamante ni mi ngi koy amal di kaas ak yu ni mel seetlu na ni amu ko woon ci gouvernement bu bi fi jot bi fi bi fi génn waaye tamit lu jëm ci euh, critique yeeg yu ni mel teel na pour pour pour moom ndax jàpp na ni gars yi amaguñu fi sax lu toll ci ñaari weer wala ca lay yam donc euh, nañ leen comme li ko sugu waxee woon sànq nañu patienté xool lañ lan la ñuy indi bàyyi leen ñu doxal teg ca na nag nee na Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye ñenn ci patriote yi yëpp wax méttiw ko mais Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko bi moo ko metti non non <laughs> euh, euh, ndax jàpp nga ne lii nga xamante ni yëkkati na ko. déglu naa ko bu baax. Euh, ndax jàpp nga ni war nañ ko ci daal di mën a sanctionner. d' abord. Mhm. balaa may ñëw ci conclusion bi d' abord Sidaat ñun déglu ko rajo yi. Mhm. ñi koy tàmm di déglu. Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko c'est pas la première fois mu wax ko. Mm-hmm. li ci vidéo la ko waxee man jàpp naa rajo bi dégg mu wax ko. yàgg naa ko dégg man mi. léegi très sincèrement bu dee lii la wax lii. Hmm. gisuma ci lu jar. tooga sa mettre nit au frigo déedéet. jaara délit d'opinion dafa war a jeex ci réew mi délit d'opinion lañ jàppee woon l'actuel président ci post bu mu def sur Facebook wax xalaatam. Mm-hmm. wax sa xalaat kay jeexal na wax. wax sa xalaat mais ku ne xalaatam lay wax man de tegoon naa lu rëy la waaye bu dee lii la wax très sincèrement Alaaji Assane avec tout le respect que je te sama grand nga mais lii moom jarul bataaxal di mettre nit au frigo réew mi dañoo war a bàyyi nit ñi ñuy wax seen et puis dañoo war a sax sant yàlla comme moom nee na Alaaji Assane régime bi fi jógee daawuloon am ñeme wax yenn yi. tey la ko ñemee wax mais cela veut dire que a libéré tout le monde. Mm-hmm. nit ñi dañuy wax seen xalaat donc loolu c'est à dañ ko war a rafetlu et bàyyi nit ñi di leen di leen di leen di leen di leen bund bunduxatal ci ci ci opinion bi ñu am et puis et puis on n'est pas obligé d'avoir les mêmes de vue mm-hmm. Assane Gueye am na droit toog ci télé bi di wax rajo bi def wax sa xalaatam am propre opinion mais un Sidath Thioune am na droit aussi toog am une opinion différente mm-hmm. mais loolu est-ce que dafa war a déteindre ci liggéey bi ci entreprise de presse bi je ne le bu dee lii la wax lii très honnêtement gisuma ci lu jar mettre nit au frigo parce que opinion la opinion et puis li ci daw yaram à la fin da ngeen ma koy féliciter man maa ngi féliciter sama directeur. Mm-hmm. man j'ai compris que Sidaat dafa am ay rapports particuliers yu mu am ak El Hadj Assane mais nag nañu jàpp ne aussi lu ñu lu ñu lu ñu gaañoo gaañoo lu ñu bokk kër gi bokk kër gi muy RFM chacun a son point de vue looluy dëgg loolu mooy dëgg de. Mm-hmm. te lii mu def nii mais am na droit def ko. xëy na bu seetloo ne xëy na El Hadj Assane na mu doon waxee ni muy waxee léegi wute na mais loolu xalaatam la El Hadj Assane mën na ci bañ a d'accord ak moom. xëy na bu ñu toogoon ñoom ñaari waxtaan du am. mais gisuma ci honnêtement lu jar bind lettre ci lii ma dégg man bokk bu fekkee am na lu ma déggut nañ ma ko wax. li ma jot vidéo lii li ma jot a dégg man. très sincèrement mhm. très sincèrement gisuma ci lu jar loolu ba pare euh, critique te jàpp naa ne sax lii du critique. Mhm. déedéet lii du critique pour man. opinion la point de vue am la ci lu mu constaté am na droit wax ko xëy na El Hadj Assane li ko doon gënal mooy mu wax ko ko directement. bañ def vidéo mais directement ou indirectement mais c'est pas mais mais am amul problème. Mhm. njiit yi aussi il faut que ñuy yaatu ginnaaw il faut que ñuy boot ñëpp ñi ngay boot ñëpp mën nga bañ a wuteeg ñoom gis-gis. Mhm. mais bu dee yow ko wax loo xamante ne dafa wuteeg saw yow sa gisin donte mu mënoon ngeen toog waxtaane ko nga nga nga nga sanctionné ko loolu du dem. parce que nag RFM dama la wax kenn ku nekk ak li la fay yóbbu am na ñoo xam ne déglu si dara rek moo taxoon ñu jàpp RFM. te lii ma dégg nii wax dëgg yàlla encore une fois ma wax ko waxaat ko man dégguma ci kàddu bu déplacé buy jar ñu ne dafa xotti war ma comme ni ma ko waxee woon ba Alaaji Assane di ko di ko di ko sanctionné xëy na dama jàpp ne bu fekkee dafa am leneen lu nekk ci suuf lu ñu waxul nit ñi. xëy na aussi mën nañ ko wax bu ñu jàppee ne aussi Sidaat dafay politique mais droit am la est-ce que def politique. tey tax na ba Sédar li mu waroon def ci kër gi yëpp defu ko. Mhm. bu ko neexee mu ànd ak Diomaye Faye bu ko neexee mu ànd ak euh, Ousmane Sonko droit am la ñeneen ñi bu leen neexee ñu ànd ak Macky Sall ñii bu leen neexee ñu ànd ak Amadou Ba ñii bu leen neexee ñu ànd ak keneen. mais sax noonu de. te teewul kër gi ni mu war doxee teewul le fonctionnement normal de l'entreprise continue di am kenn ku ci nekk li nga war a def nga def ko. Mhm. donc loolu la na nañu bàyyi daal di sanctionner nit ñi sur la base du opinion bu ñu am parce que opinion opinion la. opinion du vérité. opinion wuute na ak vérité. xëy na El mm-hmm. Hadj Assane na mu waxee ak li si daan waxee mën na wute mais kenn ku nekk ak sa opinion. Mm-hmm. mais bu dee yow boo amee opinion xalaat xalaat ñu sanctionné la comme li ñu fi jàppee woon l' actuel président ci post bu mu defoon sur Facebook rek donc nit ñi nañ leen nañ leen bàyyi ñuy wax li ñu xalaat te nag loolu nag mooy fonctionnement normal gis nga dañu nekk ci démocratie boo xamante ne pour man lii lii mooy démocratie maanaam sa directeur def dara nga wan ne ko man. lii laa ci seetlu ci li nga def. ànduma ci li nga def. démocratie la. Mm-hmm. amul dara lu ci ñaaw pour man. Mm-hmm. man de très sincèrement bu ma doon may El Hadj lii man mën naa dékku sax lu lu gën a garaaw lii mën naa ko sax yenn lu gën a garaaw lii wallaahi parce que nit ñi boo leen jiitee boo leen mënta tane wallaahi waru leen a jiite. Mm-hmm. tey Sidaat petit frère u El Hadj Assane Gueye la dañu yàgg am ay rapports yu rafet donc lii waru ko mën a yàq sur la base du simple opinion bu mu am ci ni muy defee wax sa xalaat. amaana keneen koo xamante ne gis na ne alaaj alaaji Assane Gueye ba tey dafa constant ci li muy def mm-hmm. am na koo xamante ne dafa jàpp ne alaaji Assane léegi dafa dafa gën a dëgër xalaat la ku nekk ak sa xalaat <laughs> loolu nag wax dëgg yàlla warta warta tax ñuy mettre nit au frigo mais mais mais ah. Socé en tant que bu bokk ci ci ci ci CAP dañuy mm. seetlu lu nu mel dafa commencé di bari lool ci këru taskatu xibaar yi xool mm. nit peut-être mu def waxee ni nga xamante ni neexu la nga jël ko mettre ko au frigo wala sax nga dàq ko te saa su nekk dañuy gis que ni yéen ñi nga xamante ni peut-être yéen a tënk euh, këru euh, euh, taskatu xibaar yu mag yi maanaam yéen yor kuréel yu mag yi. Mm-hmm. yu ni mel doo leen ci àddu doo leen ci wax lan moo waral. lu ni mel ah, kay dañ ciy àddu dañ ciy wax Pape Alé Niang wax naa la bi ñu ko jàppee fii ñun li tax ñu bàyyi ko. jàpp mais mettre nit au frigo. waaw non benn kuréel boo xam ne dafa ëmb presse boo jël di di. jaara loolu loolu moom du ma ko d'accord <laughs> ah, ah waaw d' accord kon moi je éminent de la CAP. d' accord kon yéen jéego ngeen di dox ci taay mel nii. yi ñuy def. Mhm. souvent duñ koy wax. doo leen koy wax déedéet. waaw ah, da ngeen ko war di ko fësal nag. comme ñëpp xam ah, waaw déglu <laughs> ko jàppee. Mhm. dañoo doon seeti le procureur ñu tëju ñu nag ñu wax mu wax mu am lu ñaan ñu may ko ko. Mhm. on est allé voir Serigne Saliou en prison loolu mosuñu ko wax fenn. d' donc cas yu mel nii xam nañu ko lijjantee. Hmm. dañ koy dox dañuy def médiation mais ci suuf. waxtaanee ko ci suuf waxtaan la ba am terrain d'entente mais aussi munoo médiation kenn du ko siiwal. loolu moom euh, sama sama sama ancien patron bi Cheikh Tidiane Gadio moo ma ko jàngaloon ci diplomatie. Mm-hmm. nee na en diplomatie booy def médiation. Mm-hmm. am na yoo xam ne doo ko wax. Mm-hmm. il a raison donc tey lii bu ko waroon lijjanti li ñuy waxtaan ak Sidaat ak El Hadji Assane yi mën nañ koo bañ a xam. mais nañu jàpp ne aussi këru tasukaayu xibaar yi comme li ma wax léegi rek kër gu ne da nga am say texte bopp mais jaara texte yi pour man li ko ëpp solo xam nga mooy lan. Mm-hmm. nit ki am capacité wu accepter yenn yi parce que texte yi lu mu baax baax baax baax baax te yow mi jiite doo jël maanaam doo jël baat ku la wokk nga xuri ko. Mm-hmm. doo baale lu nit wax nga yaakaar ne yow yaa tax muy wax doo mën a jiite kenn. te honnêtement de man de Alaaji Assane li ma ko xamee xam naa ne am na yaatu na ginnaaw ba war a mën a muñ lu mel nii très sincèrement man de daf maa bett wax dëgg yàlla Alaaji Assane ak ni ma ko xamee war naa mën a waroon naa mën a muñ sax lu gën a garaaw lii si daan wax dari nag xëy na bu fekkee dafa am yu ne ci suuf yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko parce que ñun liggéey wuñu RFM ah, wax dëgg yàlla mm-hmm. <laughs> xamuñu lu fa xew mais dañu jàpp ne daal nit ñi dañuy ma gën di muñalante ci këru tasukaayu xibaar yi et puis loolu c'est c'est partout du rek këru presse yi entreprise yi parfois gis nit ñi dafa am ay comportement yoo xam ne danga nga naan mais ñii xanaa dañu am ay antécédents yoo xamante ne dañ ko indaale ci kër gi mm-hmm. ay nit ñoo xam ne duñ nuyoonte duñu tuddante maanaam kenn du daal sa morom te loolu dafay dafay dafay détendre même ci performance su équipe bi. tout à fait mm. parce que ay bu ñu jubawul mais naka la ñu mën a amee un bon résultat mënta nekk. mënta nekk man njiit laay waxal surtout njiit yi nañu yaatu ginnaaw di accepter opinion wu ñu neen maanaam ñi ñu jiite loolu fekk defuñu ko bëgg a indi rigueur bëgg a indi règlement intérieur bu saf saaf boo defee li ñu teg la lii parfois da ngay la jéggale te loolu nag Alaaji Asan mii laa dégg mu koy wax ci rajo bi jëlale jéggale. donc moo ko waroon njëkk ah wax dëgg yàlla de grand frère. waaw man daal maa ngi lay ñaan en tant que petit frère. waa yii moom dee koy muñ te xam na nag réew mi fi mu toll nii moom. employé yi tekkiwul na yaa leen jiite rek léegi li leen neex ngay def de déedéet. Hmm. employé yi léegi dañoo am seen opinion am seen xalaat di ko exprimer nag xam nga Sidaat lii bu fekkonte ne daf ko wax ci rajo bi sax mu gën a garaaw waxu ko wax ko ci mm-hmm. vidéo la def mais loolu c'est personnel am na ci droit bu doonte ne dafa def émission wax ko ca rajo ba laa mën nañu wax ne daf ko def dans l'exercice de son métier d'animateur. Mm-hmm. mais sawaay kër gi boo génnee nag am nga droit aussi. am sa am sa ay propre opinion am sa propre point de vue mais dama gëm ne ñoom ñaar xëy na seetaanee ci dugg en tout cas mais gëm naa lu ñu war a mën a lijjanti la et loolu nag aussi euh, moom laay souhaité wax dëgg yàlla. d' accord professeur teewlu nga vidéo bi kàddu yi nga xamante ni Sidaat moom la daal di yëkkati tax jamono ju ñu toll nii ñu daal di koy euh, sanctionné na ko na daal di toog euh, këram mettre ko au frigo comme ni ñu koy baaxoo di gis di ko faral di gis boog foofee ca groupe Futurs Médias journaliste yu bari di génn di wax lu ni mel donc ndax jàpp nga ni kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci vidéo bi war na mën a tax ñu jël ay sanctions yu ni mel teg ko ci kawam. non en toute franchise wax dëgg yàlla euh, yaakaaruma ni kàddu ko yooyu noonu mu yëkkati moom Sidaat. Hmm. war na mën a tax daal ñu. Moussa Lamy est-ce que doo leen ma ko bloquer. <laughs> rési bi tey bloquer leen Moussa Lamy yaakaaruma ni daal kàddu yooyu jaara war na mën a tax daal ñu ñu mettre ko au frigo. vraiment hmm. yaakaaruma ko de. Hmm. yaakaaruma ko parce que yow. non rien dit sa euh, far dafa nekk loo xam ne. c'est côté sentimental nit mënu ci dara dara dara dara dara dara mm-hmm. mais nag mën nga toog ci rajo wala ci télé nga fexe ba sa appartenance politique wala nga fexe ba sa appartenance religieuse wala nga fexe ba sa apartenance sportive bañ a feeñ mm-hmm. euh, parce que ci li ngay yëngu la parce que ci li ngay def la parce que ci ñi ngay waxal la ku ci nekk am na appartenance mm-hmm. mais ñoom dañoo bàyyi seen apartenance ñëw di la déglu walla ñëw di la seetaan boo ko manifester rek mën na am ñoo gaañ boo ko manifester rek mën nga euh, xaw a euh, mettre ñenn ñi de côté. Mm-hmm. Euh, muy li nga xam ni daal yaakaar naa ni jaara gars yi dañoo war a am. benn honnêteté gars yi dañoo war a incarner moral ci lépp lu ñuy def. Mhm. bu dee dañ la ni yow lii ngi nii ngay wax nii nii nii parce que liñ ci gis mooy que El Hadj Assane dafa commencé di yéeg nguur gi fi nekk waa ji ne ko yéeg bi ngay yéeg ñii yéegoo ko woon ñële. Mhm. waa léegi su ñu defee jàngat rek rek rek rek rek soose. Mhm. nguur ga gële paase ñoo gën a yéegaabul que nguur gi. nguur gële passé ñoo gën a mérité woon pression que nguur gi parce que dafa am fuñ ñu jëlee mm-hmm. am fuñ ñu yóbbu que nguur gi pas parce que nguur gi nii waruñu ko teg pression mais parce que nguur gi lim fi defagum ci temps wax dëgg yàlla mérité wul pression mm-hmm. logique pour logique mm-hmm. logique pour logique mérité pression te je pense que wax nañ ko sànq bi ñuy Euh, analyser euh, cherté dund gi wàññi njëg yi ñàkk mën a wàññi njëg yi ñu wax ci liñ ci gis ñu réclamer d'après notre humble avis benn patience bi nga xam ni sénégalais yi war nañ koo am pour am yaakaar ni un jour mbir yi dana saafara. Mhm. mais yow munoo nekk ci sa ligne éditoriale yaakaar ni nguur gi nii encore une fois peut-être àndoo ak ñoom mais. war nañ mën a def de telle sorte que dañuy satisfaire sénégalais te yow yaa xaytu mu la nguur ga fa nekkoon ga fi nekkoon am na ay manquements yi tax sénégalais à leur majorité choisir changement mmh. sénégalais yi à majorité ne rupture la ñu bëgg maanaam la woon woon wi mm-hmm. waa léegi nit taxaw nekk ci sa rajo am lu mu wax waaye waxewu ko fa par respect mu def vidéo def jàngatam kese man vidéo bi ma ko déggee jàngat laa ci gis boo xam ne def na ko jàngat boo xam ne mu ngi demander à élage Hadj Assane mu patient mu ngi demander à El Hadj Assane Gueye mu logique mhm. ngi demander à El Hadj Assane mu rationnel ci yéeg bi nga xam ne mu ngi koy yéeg nguur gi te pourtant yéegu ko woon nguur gale mhm. et dans sa conclusion mu ne Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko Socé moo ni moom dégg na Sidaat doon wax loolu ci rajo. ah man même sax na ku sa baa mais yàgg naa dégg ma man man man ma ko dégg. nga may ma nga may ma rek ma ma sërxal foofu après nga àggale. xam nga xam nga Sidaat bu nekkee ci rajo bi. Mhm. animation lay def. Mhm. humour lay def. donc man ci cadre boobu laa laa laa mhm. ne li mu wax ay jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay ci rajo bi garaawul. waaw c'est dans le cadre de l'animation. mais bu génnee rajo bi nag. am na am na am na opinion personnelle am mhm. moom voilà mhm. Mhm. très bien bu xam nga xam nga xam nga bu dee loolu wax na ko ci cadre humour mais am na ñoo xam ne ci li nga xam ne moo gën a responsable ci li ñuy occupé ci rajo wala ci télé assumer nañu seen position boobu ba mu jural leen leneen mais lui peut-être par respect assumer wul position boobu et il a préféré avancer son point de vue or de muy liggéeyee waa léegi jaara ana démocratie ana liberté d'expression ana ana ana ana léegi nag ñun dañoo am habitude te dañ koy gis fii ci patron de presse yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri nga wax loo xam ne arrangé wu leen ñu ne la xaaral parce parce que duñ la dàq buñ la dàqee après plainte yooyu mën na du dañ naan xaaral bon euh, humiliation lañ ko mën a tuddee. Mm-hmm. humilier la parce que am na ñoo xam ne seen dignité mayu leen ñu toog ñu mettre leen au frigo ñu toog liggéeyuñ am na ñoo xam ne nag dañuy defanteeg yow di la taañaañal farankulaay wala dem uti leneen yow nga jaar foofu. ba pare di recevoir seen salaire ndax. bu ñu bu ñu fàttali dañuy continuer di recevoir. dañuy continuer di recevoir seen mais am na ci ñoo xam ne yow mën nga jékki rek génn réew bi mu woo la ne la kaay xëy si. Mhm. xëy si boo xëy si wul weer bi du ma la ko fay. dañ ko fi gis am nañ ay exemple yoo xam ne gis nañ ko fi ci yenn patron de presse yu ñu koy def. Mm-hmm. waa léegi yow tànn nga sa ligne éditoriale yow tànn nga li ngay wax mais keneen ak keneen am na lu muy wax waaye kooku par respect waxu ko fële. Mm-hmm. waxewu ko ci sa rajo waxewu ko ci sa tele waaye yaa xaytu mu laa léegi nag pourquoi nga bëgg ne nit ki nag à chaque fois yow fi nga xool lay xool fi nga joxoñ lay xool sa gis-gis lay am waa te nit ku nekk am xelam te ku nekk am sentiment am te ku nekk am. capacité intellectuelle à pouvoir analyser par lui-même et pour lui-même nga ni ko lii doo ko fi waxee wala gis-gis bi doo ko am parce que man sama gis-gis nga war a am ah, wax dëgg yàlla nag. Mhm. lu ñu am am am am am am ay gis-gis gis-gis yi mënul boq am na franchement gis-gis yi mënul bokk. ah may profito ci occasion bi wax dëgg yàlla am na yenn yoo. xam ah, ne di ko ma saw bu baax. suñu suñu naataangoo la ci kër ci ñu la bokk. dama walaay damaa gëm ne leneen la ci nekk peut-être leneen la gis nga soose dafa am yoo xam ne damaa gëm ne leneen parce que man El Hadj Assane très sincèrement xam naa ko. waaw El Hadj Assane mi ma xam mën naa yenn lu gën a garaaw lii. waaw mais Sidaat waxul dara. non non il n'a rien dit. départ gay ne arrivé moos. <laughs> mais loolu loolu loolu loolu loolu ay termes si Sidaat dafa am ay propre termes am moom en rajo. man de dama dama. li mu wax nii très sincèrement mais. dama jàpp ni daal yenn mbir yi war nañ koo dépasser. léegi nag ñoom aussi seen seen cuisine interne la. waaw am na yoo xam ne daal am na yoo xam ne daal war nañ koo dépasser waxoo lii lii nga wax arrangé wu ma donc man dama lay génnee xam nga yooyu daal war nañ koo dépasser quoi Sénégal daal wax dëgg yàlla. wax sa xalaat daal. wax sa xalaat daal jeexal nay wax. jeexal na jeexal ca mooy dëgg sax wax sa mooy dëgg su ko. jeexal nay wax quoi franchement d'accord su ko su ko defee euh, voilà euh, mënu woon ñàkk ñu wax ci ndax euh, ci ñun nañ bokk ñoom ñaar ñëpp mi El Hadj Assane Gueye moom defe naa ni ci suñu mag yi la bokk. Euh, waaye euh, Sidaat ci ñun la bokk donc euh, ci ñunu neen ñunu neen la c'est normal ñu waxtaanee lu jëm ci suñu métier bi ak damay doxee donc ñu ngi koy masaw bu baax a baax di wax ñaan tamit ñu waxtaanee mbir mi ndax nag ñoom ñoo bokk groupe Futurs Médias ñoo bokk métier bi donc nañu ko waxtaanee El Hadj Assane comme ni ko soo Socé waxee sànq. Mm-hmm. nay jéggale tey baale te xam ni nag njiit dafa metti boo ah, jiitalee sa ginnaaw dafa war a sedd ngay baale su ko defee Socé ñu ñu toll xam na ne honorable yéen a ngi koy laajte boobaak léegi